Euh, jërëjëf madame la présidente na maa ngi lay nuyu ministère euh, fonction publique maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga àndal di nuyu sama xarit Moustapha ministre du travail aussi ministre wet damay faral di wax nag naan bu nee nit baax na da ngeen koy laaj mbokk ya ñu ne yow ñoo dëkk fii juróom-benn député ñoo jóge Touba département Mbacké ñëw juróom-benn député yëpp xëy na sauf exceptionnel parce que xëy na jëlul kàddu ndax li tax jëlul kàddu xam naa ko xam na ko moom waaye juróom yi fi nekk yëpp kontaan nañu sa doxalin te dëkk ak yow boo leen gisee ñoom nanguñ fi sax toog parce que mënoo dëkk département Mbacké ñu nekk fa ay yow ban la falee ba tey amul benn séance de travail wala benn action boo xamante ni séq nga ko ak ak député yu ne ba si man mi wax a yow loolu rafetul te mboolem député yi nekk fii kenn ku nekk bu sa ministre day ñëw da ngay ñëw pour wan ni ne am nga feexte yow ki nga xamante ni moo nekk yow mais ñun de département Mbacké amuñu feexte ci yow mi nga xam ne yow la parce que dañ doon wax ne nañu nomel ministre wax ko Macky Sall ma ci xeex guddeeg bëccëg mais bi falee ba mel na ne amuñu loolu mooy li am loolu nag dama koy wax parce que tey boo xoolee tey sama xarit sama xarit bi nga xamante ni moom laay wax di sama di sama xarit tey bu duudi ko doon ñëw dana jël kàddu mais malheureusement nanguutu jël kàddu ndax da nanguutu jël kàddu mooy am xamul lu muy wax beneen bi mooy monsieur le ministre li jëm ci mbirum dictionnaire yi nga xamante ne moom la ñu ñëpp yu coow mais il faut nga régler problème boobu parce que mënoo ñëw ci ministère boo xam ni da nga ko fekk ay jafe-jafe ka nga fa remplacé muy Mariama Sarr liggéey fa liggéey bu am solo nga ñëw mel ni ku mënta dem bu fekkente mënuloo liggéey bi da ngay bàyyi da ngay démission jox keneen ndax gis na ni amul benn taxawaay bu rafet boo jëmee ci li nga xamante ni ñoom nga dëkk si département Mbacké rawatina Touba gi ma dëkk ba ci lu mujj lii nga xamante ni mooy recrutement yi recrutement yi mu ngi nekk mille soixante personnes moom la recruter Mbacké am na si deux cent soixante Touba loolu jaaru li si baa ngi nii boo jëlee tey jii may wax a yow primature maanaam président la république dugal nga fa ñaari Mbacké ñaar ñaar ñu dëkk Mbacké li baa ngi nii mën naa ko li ministre bu nekk ña nga fa ak seen tur waaye nag du ma wax lu du dëgg parce que naa ko liste baa ngi nii ñi ngi jël ñëpp dëkk Mbàkke mi ngi nii jël nga fa maanaam deux cent et quelques personnes yu dëkk commune Mbàkke doon la jàppale si politique te malheureusement ñun ñi nga xamante ne askan wi ñu tànn day gisuma kenn koo si jëlal wala koo xam ne laaj nga ko sax ni ko est-ce que amul kenn koo xam ne ko dëkk tubaal la xëy nañu dëkk foofu li sama benn nattangoo léegi doon wax fii nii président Ablaye Wade li mu def ci fonction publique fonctionnaire yi xam nañu ko loolu sax si laay sukkandiku nuyu à passage sama grand frère bi ànd ak yow muy Moussa euh, Moussa Sakho mi nga xam nekkoon na ministre ci jamonoy Ablaye Wade yore woon formation professionnelle dëkk Mbacke mi ngi sa ginnaaw tey toog moo lay wane àdduna lépp day jeex te ba mu fa nekkee moom pourtant rafetlu rafetaloon na ko tey boo xoolee tey avance Tabaski cinquante mille la ko Ablaye Wade fekk moo ko yóbbu cent mille Moustapha Ba mi xam na li may wax. li nga xamante mooy yenn avance yi na ko defoon ko soixante mille kenn waaye am lu fi Ablaye kon loolu mooy li wér nit da ngay fàttaliku jëfi démb parce que nguur day jeex kuy dund si nguur aku xaalis loolu day jeex li lu du jeex mooy def lu baax ak gëm yàlla ñun nag sëñ Tuubaa moo ñu dundal man faaliwu ma nguur faaliwu opposition dund sëñ Tuubaa laay dund boo gisee ma am sañ-sañ ar ma xëyee leer di sant sëñ Tuubaa loolu mooy li nga xamante ni moom laa gëm te moom laay doxal Touba ak Mbacké daal monsieur le ministre amul satisfaction ci yow Touba ak Mbacké monsieur le ministre population bi kontaan ci yow monsieur le ministre Touba ak Mbacké bëgguñ si yow monsieur le ministre Touba ak Mbacké amuñu benn maanaam intention boo xamante ni wan nga leen ko ci li nga xamal le président Macky Sall jox pour nga mën koo liggéey monsieur le ministre wàcceel sa bopp te wax askan wi monsieur le ministre nguur gi jeex na Touba yow doo nga nekkoo fa Macky Sall dafa am sew yaakaar mais ñu ñu nekk day nekk say nawle nekk say nattungoo di liggéey ay askan wi amoo si ñun yitte amoo si askan wi yitte sa wërëma jërë nga jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah